ay ku nekk ak boosam ku nekk ak yëfam ma dama sonn loo ba am ko dama koy téye sama ñaari loxo ami internaute euh, Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu comme ni leen daan nuyoo à travers Thiès Info Thiès TV ñu amaat mbégte contentement comme ni ñu koy defee saa su ne ma nag euh, tonton Alioune Fall ñu fas yéene leen tegal ci table bi nag euh, comme ni ngeen ko gisee juste derrière moi benn kër R plus nekk fii ci cité ouvrière donc ba laataa ñuy xuus rek Euh, Kaja maa ngi lay fay ma ngi nuyu waa Thiès Info. donc comme niñ koy defee tey amaat nañu beneen produit bo intéressant donc bu nekk euh, Thiès ville dans la euh, cité ouvrière donc c'est une maison R plus 1 et bien conçue et bien et donc déjà habitée. donc euh, comme ni mu ko waxee R plus 1 la donc euh, ci suuf am na cinq chambre donc quatre chambres yoo xamante ne ñoo am salon ak ah, ñoo am salle de bain ak benn chambre boo xamante ne simple la am na salon am na aussi euh, une boutique waa comme ni ko sama caméraman bi jëlee noonu am na une boutique à l'extérieur mais également am na toilette extérieure donc am na cour bu yaatoo yaatu yaatu xam naa dañuy ànd ak ki nga xamante ni mooy Jean rek bu ko defee ñu dugg ci biir dal di leen wan mais également li nekk ci kaw li nekk ci suuf tonton moo nekk ci kaw. waaw li nekk ci suuf moo nekk ci kaw c'est ci kaw euh, fi nga xam ne magasin bi. génn ci mbedd mi donc moom moo mooy yokkuwaat ci kaw mu nekk euh, ba beneen chambre de plus. mën nañu wax six chambres. waaw mën nañ ci kaw am na six chambres. voilà am na également espace boo xamante ni euh, tey jii ku am ay ay ay xar su ma juumul ah ci ginnaaw mën nga ko fa def donc euh, comme ni ñu leen ko waxee rek kër gi nekk na vraiment ci diggu koñ bi. Mm. nekk fii ci. waaw mi ngi ci cité ouvrière position bi mu nekkee c'est derrière CM Balabé euh, mais aussi euh, ci côté fi ñuy wax usine traverse euh, non loin de la voie ferrée donc fii yëpp c'est habité et donc trafic bi danse na dem beeg dëkk bi yomb na mais c'est accessible ndaxte soo soo génnee nii man nga dox dugg ite ñax jàmm gën euh, sampaate yi mën nga fa génne bu la neexee tamit euh, boo jëmee côté euh, Medina Fall wala Kër Issa tamit pour nga ka dem c'est facile quoi donc vraiment site bi baax na lool donc c'est dans la cité ouvrière logement cité ouvrière yi. voilà et surtout nag en un prix vraiment très très très abordable ni ma koy faral di waxee rek képp ku nga xamante ni soxna ci soxla na ci produit yi numéro baa ngi noonu au bord de camp tonton Fall mi ngay woo jot ko bu ko defee moom dina la expliquer modalité mais tonton Fall tey jii euh, tey jii ku soxla kër gi nga expliquer ñu rek euh, nu muy demee. waaw ah non kër gi moom euh, ku ko soxla. man moom euh, su euh, euh, ki ma ko gënoon a yéene mooy soit un un médecin bu mu man ko def cabinet médical parce que y a y a beaucoup de salles te cité ouvrière dafa manqué infrastructure sanitaire quoi. cité ouvrière daal looloo fi manqué infrastructure sanitaire mais fii moom. ku ko amoon comme infrastructure sanitaire euh, population bi dinañ ci ci seen bopp na ndaxte euh, vraiment euh, donc ça répond aux normes ko xam naa dañuy àndandoo rek daal di won internautes yi donc espace bi chambre yeeg yéeg ci kaw ak cour bi si ginnaaw bu ko defee ngeen am benn visibilité ci liñ leen di wax xam nga ma xam nga ma am nga maanaam ay ku nekk ak boosam ku nekk ak yëfam ma dama sonn ba am ko dama koy téye sama ñaari loxo